mbokk yi safam TV maa ngi bëgg ñëpp di di ñëw ngeen cherche ak terme gën journée tey bi tombé mardi 20 dañu ko ak kii di yee Kylian Mbappé bi nga xam ne nag suñu information yu Marca joxe kii di Kylian Mbappé signé na contrat am ak Real Madrid kon mu ngi signé juróomi atu contrat ak Real mu ngi war laal salaire bu toll si 20 millions d'euros at bu nekk. ak ay bonus kon nag Kylian Mbappé dinañ ko présenté si stade bi di Santiago Bernabéu su saison bi jeexee waaye suñ sukkandikoo si information yu journaliste bi di Matteo Moretto joxe waa Real Madrid bëgguñ fësal dara si ay mbiru kii di Kylian Mbappé laata nag saison bi jeexal wala compétition yi jeex kon nag dañoo bëgg a bàyyi ba saison bi jeex ngir nag ñu officialiser carrément ñëw kii di Kylian Mbappé si équipe bi ba léegi ak Real changé gul kon na Luka Modric bi nga xam ne nu mu gën a jege jamono mu toll nii nag euh, jël si équipe bi su saison bu jeexee kon daal la Luka Modric bi nga xam ne def na yat foofu sa Real su saison bu jeexee dina fa jógee si club bi di FC Barcelone la jàll Roberto De bi nga xam ne moom la Deco di euh, directeur sportif ak euh, Juan Laporta di président bi tànnoon ngir nag remplacer Xavi Hernandez si yabaw équipe bi su saison bu jeexee kii di Roberto De Zerbi moom nag mu ngi dàkk offre bi nga xam ne moom la ko FC Barcelone bëgg a defal mooy nag euh, Barcelone dañoo bëgg mu ñëw entraîneur sous son abri waaye Roberto De Zerbi lu mu si loolu mooy nag euh, yëg na ne am na ay club yu mag yu bëri yu intéressé aussi moom waaye nag moom fu mu toll dafa concentré wu si euh, Brighton mi nga xam ne nag fa la nekk entraîneur kon daal la jamono ñu toll nii si Brighton la concentré wu te nag euh, tontoogul benn équipe yi nga xam ne soxla nañ ko ba léegi ak FC Barcelone agent Alphonso Davies nekk latéral si euh, club bi di euh, Bayern Munich bi nga xam ne nag mu ngi waxtaan ak club bi di Real Madrid teewul nag jàll na FC Barcelone kon nag Barcelone ñoom seen côté dañoo bëgg a amaale kii di Alphonso Davies bi nga xam ne nag mu ngi waxtaan ak Real Madrid. Achraf Hakimi moom moo jël na dogal ne day jóge si club bi di Paris Saint-Germain su saison bu jeexee kon nag Achraf waareel naka luñ ko bëggoon mooy naka recruter ko si atu 2025 muy bi ngir naka renforcer seen côté latéral droit bi par changement ñoom moo ñu yaakaar prolonger seen latéral bi ba léegi si club bi di Olympique de Marseille la jàll ki di Gennaro Gattuso nekkatul entraîneur équipe bu Marseille bi kon nag ki di Gennaro Gattuso dàkk nañ ko si yabawu Marseille Jean-Luc Gasset moo koy remplacé ba saison bu jeex jamonoñ tol li nag ay waxtaan yu ngi commencé am si ya diggante Bayern Munich ak seen entraîneur bi di ya Thomas Tuchel gannaaw nag résultat yi nga xam ne demeewul noonu si ya ban équipe bi kon daal ki di ya Thomas Tuchel jamonoñ tol li nag mu ngi gën a jeeku ngir nag di nga xam ne mën naa remplacer Thomas Tuchel si ya ban Bayern kon kii di Zinedine Zidane waa Bayern Munich jamono ñu toll nii bëgg nañ mu ñëw foofu sax Bayern ngeen nag entraîné leen Joshua Kimmich moom moo dafa bëgg a jógee Bayern Munich gannaaw nag relation yu bon yi nga digganteem ak entraîneur am relation yi demeetul noonu te nag fu nii moom moo jël na dogal ne nag day jógee si yabanwu équipe bi su fekkee nag sa Tuchel jógee si banc moom nag dina jógee si lee équipe bi gannaaw ba Bayern Munich Manchester United ñu ngi bàyyi xel Théo Hernandez bu mu lancé ki nag ko si mercato bi di ñëw kon na latéral Milan bi di Théo Hernandez fu mu toll nii club yu bëri taxaw nañ ko recruté gi si mel ni Bayern Manchester United Walter Mazzarri nekkatul entraîneur Napoli gannaaw bi nga xam ne nag ay résultats yu bon la nekk équipe bi ñu joxe la coupe du monde bi ci soccer mu du monde football lu tefes yi Sénégal gannaaw bi nga xam ne nag njëkk na am defet si ñaareelu match am da ko gagné si kanamu Colombie doo juróomi bal si ñett kon na ñetteelu match am mu ngi ko war nii su 15 war see laale Japon kon daal Sénégal faaw nag moo gagné ngir nag jéem a jàll si phase bi si foofu la ñuy xibaar yi di jox dig daje beneen yoon seen xibaar di